ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di sant yàlla ci ndimbal li bu ñu dimbali ba ñu mën a teewee bis bu tedd bii di bis bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doon wax ne xadajtu yow ma sabti saamine asat li xidmatil muxtaari fii saxari safar nga xam ne ci la génnoon liggéeyali boroomam sëriñ Moussa Ka wax ne budul woon ak demam gi wolof nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraanu Mbàkke Bàlla nag moom sëriñ Touba yàlla nañu ko yàlla fayal ngir kat moom nit la ko xam ne damay wax ne ba coono yi ñëwee dafa jël lépp jëfandikoo ko bi cant gi accès mu jël lépp ñëw ne ñëw leen ñu santale ma yàlla sama borom. amul lenn lu mu mas a woote ndimbal lu dul ñu santale ko yàlla suñu borom kon nag bis bi bu ngeen ñu ci laajee li ngeen ñu laaj mm, war nañ cee tontu ngir kat euh, Sëriñ Tuubaa dafa mas a wax ne àjjana ak sawara de amuñu ay bis comme nii ñu amee ay bis ñun waaye sama bis bii di bisu màggal gi saa bu agsee ña nekk sawara danañ wàññi seeni mbugal ban xam ne tey sama bis bi ña nekk àjjana danañ yokk seeni xewal ban xam ne tey sama bis bi kon nag looloo waral saa bu safar jubsee weer wit teru ngay gis murit yëpp lépp lu ñu jàpp ñu koy bàyyi di liggéeyal Serigne Touba di togg ay ñam di ko joxe kon nag loolu liggéeyu Serigne Touba la boo xam ne yàlla nangul na ko ko yàlla nag lépp lu may luy continuer lay doon fii ci àdduna la ñëpp di tege seen bët ne loolee lu dëgg la lu wér na yàlla maye na ko kon ñu santaat Serigne Touba ci loolu bu baax a baax a baax ci ndimbal li mu ñu dimbali ba boole ñu ci lépp nag lam ca waxoon daal ni képp ku màggali bisam ba aj nga umra nga jihaad nga am nga yool ba kon nag ñun bu ñu ñëwee màggali bis boobu kon nañ xam ne yooyu yëpp ci suñu borom dige woon jox wax ko Serigne tubaa ngir mu leeral ko kon ñun am nañ yool boobu te yàlla nañ ko suñu borom nangul. leneen la ca toppi lii nga ma woo Serigne Touba mooy solution bi war a lijjanti àdduna solution bi war a lijjanti àdduna mooy Serigne Touba ndax kat jamono ji ku ne gis na réew mi ni mu amee jàmm. ni mu dale loolee nag ba ko Serigne Touba di wax kenn xawul kañ la woon sëriñ Serigne Mountakha ba mu dem Ndakaaru ku ne xam na ne ay jafe-jafe bari na lool ñëpp xuloo kenn jubóowut ak sa morom waaye nag sëriñ Touba waxoon na ne lil Mountakha wajjaxtu fi Ndakaaru sikran bi xat ku kibal makaaru nee na maanaam danaa demaat Ndakaaru boo xam ne jëmmi Mountakha laay doon te sama dem googee nag ngir fàttaliku mbir moo ma fa yóbbu te dem googee ma fay dem nag mboolem luy ay jafe-jafe ca lay deñee kon ba Serigne Touba waxee ne jàmm dana am booba kenn xamul kañ la Serigne Touba nag dafa mas wax ne jàmm amul lu ko gën àdduna amul lu ko gën alaaxira moom nag mu daan dox ci loolu daa ca wax. ba nga xamante ni sax dëkk bi mu njëkk sos ci kaw suuf mawal ko boppam Daaru Salaam la ko tuddee muy këru jàmm gi kon ñun képp koo xamante ni ab jullit nga war ngaa jël exemple ci jàmm ci Serigne Touba koo xamante ni teg nañ ko lu ne xeex nañ ko lu ne.

am ay borom xam-xam yoo xam ne ñi ngi ci réew mi nangu woo leen a ci dugal leen ci biir état bi ñu àndandoo liggéey bu dee réew mee leen ñor woowoo leen tàllal leen loxo man de jàpp naa ne man réew mi ngay woote ñoru la kon nag naa président Macky Sall ñu ngi koy ñaan mu tàllal loxo mboolem opposition bi nga xam ne ay borom ñi ci am xam-xam ne leen tàllal loxo ñu xëcc leen ñu doxal ndax kat sëñ Mountakha war na ko yoon wi ndax kat réew moo xamante ni pétrole feeñ na fa gaz feeñ na fa phosphate am na fa lépp feer am na fa lépp am na fa réew moom bis bu bis bu développé wul kon nan xam ne jikko yi moo yàqu jikko yi nag nañu fexe ba kenn ku ne sab xol nga yaatal ko ubbi ko opposition bi tamit nan xam ne am réew duñ ko joxe nit ci ay xuloo ki xeex wala ay saaga ña nga xamante ni ñoo ko jiite waaye nañu xam ne la ñu joxee am réew ab yar lay doon ndax kat nit ku mën ta jiite lenn kon nag ñoom it ñu ngi leen di ñaan ñu jox loxo buñ leen tàllalee loxo ñu àndandoo liggéey réew mi ñu xam ne réew mi daal moo ñu ñor xam ne daal lancé na message boo xamante ni képp koo xamante ni jàmm ñor na la wala képp koo xamante ni bëgg lu baax ñor na la wala képp képp koo xam ne bëgg àdduna maanaam bëgg liggéeyal réew mi ñor na la war ngaa joxe maanaam war nga ko wuyu ca wooteem boobu mu woote muy jàmm moom nag Mbacke Balla mënta ñàkk dox ci jàmm ndax koo xamante ni Serigne Bassirou mooy sa waajur Al Bassirou nag mooy firi mbégte Al Bassirou bi ko sëriñ Touba maanaam bi mu ganee jamono mi ngi fekk Serigne Touba ci biir géej gi. Sëriñ Tuubaa booba waxoon na daal ne bu gënee àdduna nañ ko tuddee Basiiru kon kooka ba muy dem fam demoon xam na ko xam ne ne kon mbégte képp la fay jëlee kon nag kooku bu dikkee tàllal loxo ñëpp kon na ñëpp xam ne réew mi ci mbégte lañ war a dox Sénégal nag bu ñu joxantee loxo juboo bokk ndey ak baay rek lépp mën naa baax mbokki taalibe tamit ñu ngi leen di gën a lancé waat message li nga xamante ni moom lañ andi Touba muy yar bi ak col gu yiw gi ba gis nga xamante ni man ba ma dalee màggal ba tey maa ngi doo gis màggal koo xam ne mosumaa gis lenn loo xam ne maanaam lu dëppoowut ak bëgg-bëggu sëriñ bi la ndax bi sëriñ bi wootee message bi mu lancé woote ko ngir bañ ko ci dëkk bi ñëpp bañ la nan ko ko waaye nag bu ñu ko yemalee ci dëkk bi rek képp ku dem fa dem na nga fa yóbbaale loolu xam ne kat murit fépp fu mu nekk ak tuubaam la di santit waa Dakaractu bu baax a baax a baax seenub liggéey ñu ngi koy rafetlu ndax ñu ngi gis ba màggal gi dooree ba léegi lépp bàyyi nañ ko dëgmal màggal gi yéen nag ñu ngi leen di ñaanal lépp loo xamante ni Serigne Touba mi ngi koy séddale yàlla bu leen ci kenn ëppale di ñaan bu baax baax it seen télé bii ngeen yor muy Dakaractu yàlla na bokk ci site yi gën a mag ci àdduna suñu borom mën na ko te yàlla na ko def barke wa aaxiru daxwaana alhamdulillahi rabbil aalamiin jërë ngeen jëf salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar